saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa bataille rangée ba amoon démb ci arène nationale combat ba waroon dox ca diggante Alioune Seye 2 ak ñàq jëriñu mu jéewu taam Alioune Seye 2 ma préparé ñàq jëriñu entraîné ngir ñàq jëriñu préparateur mystique ku ñàq jëriñu bala mu jébareel boo demee ci xët wu njëkk sunu lamb da nga fay fekk Alioune Seye 2 mu kor préparateur mystique ku ñàq jëriñu bëgg ko dugal ko xeex bu méttee métti moo amoon démb ca diggante waaloog caaroy mbooloo le journal ba xamle mooy démb ci arène nationale foo sànni mbattu mu takk xeexoo xiiroo moo fa nekkoon démb xeex bi ni mel musuñu koo làmb waaye li ni melit ñaaw na ci làmb coow laa nga commencé ba arbitre ba wootee woo ñaq jëriñu woo Alioune Seye 2 ne leen bi jot na ñëw leen ngeen bëri si ni ñu ko baaxoo def ci làmb mbër mu nekk ànd ak ñëw def say préparation yu mujj sottee say butéel mujj fas yéene jàkkaarloog sa adversaire ba Alioune Seye 2 di sottee ay butéelam ak lagg ca digg géew ba boobee fekk na préparateur mystique ñaq jëriñu moom it am lu mu yor di ko wis ca digg géew ba Touré mer na ba topp ca kawam ba ko Aline Sey dabee dafa jàpp ca mbubb ma envoyé ab coup ñu nekk ca kërti kërti waa ñaq jëriñu daw wallu si waa Aline Sey de ñoom i daw wallu si vocal yaak sms yaak rappel moyen mel ni tuq bënn saañ ba réer ku wallu si ku ngay indi boo ñëwee danga koy joxe toog ba pënd ba wuree Aline Sey de kenn mënatut a gis kanam nga ndax deret ca la yaram ya tàng neer ya tàng mu delluwaat ca gàllaajam ya ca digg géew ba jël baama toppi ñaq jëriñu ba ñaq baa kenn ko fa mu war a na jëm ca tëggkat ya foofa nooyut mu ñàkk sens sa bunt ba nga njëkk song fekk na boobee bokkul ci yi sinuwaay ubbi foofee la ko waa kër Alioune Seye 2 tànc koy duma duma yu metti coow la ne cour arène nationale foo sànni mbàttu mu tag waaye le ba xam mooy mbir mi yépp mu ngi xewee ci kanamu monsieur le ministre Matar Ba xewee ci kanamu président CNG Alioune Sarr moom monsieur le ministre Matar Ba mu xam mooy lii moom du luy continuer lii du luy wéy dana dakk léegi violence bi ni mel moo bu négatif la ci làmb ak fi làmb toll lii moom bokkul ci luy lamb Abdoulaye Ndiaye ne ko père Bécaye na sa sedd les fautifs seront identifiés et sanctionnés stade baa ngi ne bu jëkki caméra de surveillance mbooleem ko ci laale booy boo xam ne danañ la ne nuus danañ ko jàppoon ne lamb nga ca crise jàppal ne lamb ji jàllale nañ ko la dantek mu nga réanimation lamb ci crise la nekkoon waaye léegi sax daa nooyeetul lamb jaa nga réanimation dana yeewam du yeewu foofee la coow la nekk léegi xaadim sàmb préparateur mystique ku ñàkk lay bëreel doo ko gëm ku ñu waxoon ne démb ci arène nationale grand combat dana fa amit doo ko gëm ba xeex ba méttee ba jàll ba pënd ba wuri arbitre yi dañoo woote grand combat ba diggante Eumeu Sène Senior ak Bour Sine mujjee nanoo bëre combat bu yàgg bu neex ci la Eumeu Sène Senior daal daan Bour Sine laataa jël di am xeex nañ xeex bu neex bu ñu jàllee ca diggante Balla Gaye ak Boy Niang 2 dàqut bëre Boy Niang waaye moom it xëy naa ki mbokkam wax ca wax ja moom bàyyi ngeen may entraîneur Malick Niang la mu xam mooy Malick Niang bu jëlee rëg-rëg dana ko duma duma yu metti bu rëg-rëg jëlee Malick Niang Malick Niang dana ko duma dana ko daan Fallou Ndiaye ni ca tonn ne rëg-rëg bu nangoo li ma koy proposé suba suba combat bi taxaw nangu naag nanguwut état boobu weesu nañu ko loolee la Fallou Ndiaye xam fi ñu tollu kay mooy ci problème kase rëg-rëg buy nangu li ma koy proposé tey a fës ci ëttu yéene kaa bi ñu leen jox dig